mais mën ngaa nangu na ñu ngi ci yoon bi wàllu mbay mi ñu ngi ciy bëgg a delloo ndaw ñi commencé nañ d'ailleurs ay vacances citoyennes te am nañu yéene sumb xëy na combat pour la souveraineté alimentaire su boobaa itam dinañu gën a delloo ndaw yi ci dëkki kaw yi bu ko defee ñu mën a dellu ci tool yi xëy na loolu dina régler en partie le problème à Dakar. xam nga souveraineté alimentaire moom ji suma benn Sénégalais bu ko bañ mais kenn du ko décréter c'est un processus fallait nga créer des faire accessible eau et électricité. ce que le président Macky Sall avait fait mu am des voies d'évacuation nga motoriser accompagner ba pare nag di di di sensibiliser li Ousmane Sonko defoon grand théâtre su ma doon man ci àll koy def invité ndaw ñi retour à la parce que itam nag ànduma ak moom de waaye yàlla may na ko bàyyire boo xam ne ci mbooloo mm. xëy na sa awma aska daf ko war a utiliser pour remobiliser la jeunesse autour mais pas di dem fële di tourner en dérision le président de la république di ko wax ay sëriñ ngundu xam nga sëriñ Ngundu mooy sëriñ boobu nga xam ne ni taalibe mu ko ëpp aluwa parce que loolu c' est tourné en dérision le président de la république sëriñ Ngundu mooy sëriñ bi nga xam ne ni bu jàngee saar mokkalul mooy sëriñ bi aayul dans l' imaginaire su ko premier ministre def nag bu dee kaf la ko jëlee c' est parce que day tax itam nit am beneen perception sur le président Diomaye qui commençait à être tourné en ridicule par beaucoup de bokk na ci bokk na ci voix offensive de l' li ma waxoon rek laay wax waxuma la président de la République man mm-hmm. un citoyen normal dañ ko war a respecter man ànduma ci saaga ànduma kuy saaga ànduma ci wax ju war mawul na ma ko doon xeexee démb ci xeex ko moom mii Ousmane Sonko Premier ministre ba mu koy wax noonu laa koy xeexaatee tey ak ko mun munti def waaye nag soo bàyyee ki saaga ndey président de la République dem jàpp Bah Diakhaté wala Ahmed Suzanne Camara gëmm ci kooku sant Fall saaga ndey Sénégal yëpp gis ko yaa ngi ci singili tu es de faire deux pois de une mesure de deux deux mesures de xaw ma nu ñu koy waxatee di encore yaa ngi singili pour ne pas me tromper yooyu la ñuy xeex yooyu la àndul yooyu la ñu parce que man li may faral di wax rek man lu ma dul wax yére bu ma dul sol du ma ko solal jàmbur te ànduma ci man démocratie pour man amul insolence amul arrogance débat di de la ku ne wax li nga xalaatee mais malheureusement li ñu seetlu gis nañ ko à la à la limite ça tu t'affiches avec ces ma ko ŋàññee woon quand le président Macky Sall s'était affiché avec mu baal ma ci wax ji su ma tuddee turam qu'il m'excuse mais dama d'accordul ni koo xam ne dañ dem ba ràññali ne da ngay saaga waroo taxaw ak njiitu réew tu donnes un mauvais exemple à nos jeunes noonu laa koy bañewaat tey encore une fois parce que saaga xaste wax ju ñaaw ku koy def dañ la war a écarter waruñ la fésal waroo daje kilifa yu baax yi parce que réew mi nag dafa am lu ko muur ñun on est une démocratie à part ñun suñu réew mi war ma yitte jox cër kilifa jógewu fi benn yoon même bu dee ci at yi weesu nag sama gars yi yëngal nañ ko lu bare bare bare bare bare ba tax na ñoom itam du yomb ci ñoom de. arrestation wu Amath Suzanne ak Bah Diakhaté da nga ko dugal ci dictature. Ah, si la Abdou Mbow waxee. article article quatre article offense au chef de l' waaye waaye moom premier ministre lu mu deful waxul Macky Sall lan la fi waxul Macky Sall ñu ngi wane ni amuñ tolérance mais nag man la ma waxoon démb lay waxaat tey de man ànduma ak saaga de. Mhm. man du xasti du ma saaga. parce que nag wax ju rafetul kenn du ko loo man yére bu mu sol du ko solal jàmbur mais dama ne la ku fi bàyyi kuy saaga ndey dem jàpp ñii bàyyi kii mooy ni parce que ñii ànd ak yow wala boog dafa nekkoon ci plan boo ni bu ñu jëlee réew mi ñii ak ñii bokk nañ ci ñi niy jàpp mu nekk plan pour noppiloo leen mais kenn mënta noppiloo Sénégalais yi la ñuy dund ñoo ko xam ñu ngi lay bàyyi xel ana ñu nañ la jënti vaar moo tax man ak sama morom bi opposé wu ngela nañ digle wala dige lu ñu gëm ak lu ñu mën ndax ni ñu toogee ñoom suba dañuy wàcc ñeneen yéeg àddinaa ni tudd bu ñu nekkee ci bëccëg ni nekk ci guddi bu ñu nekkee ci pouvoir ñi nekkee ci opposition sooy wut na rafet ba bu la yàlla joxee sa yorin ñol waaye tey li tax jomaay gars yi inquiété wuñ ko lu bari parce que waxul lu bari de diggewul lu bari de ki diggee Mons et Merveilles kay mooy Ousmane Sonko ay jëfam nag di waroo ak yi waxi démbam moo tax le propre opposant c'est mooy vaar bi xew ci jamono heure bu ne ñu tegal ko vaar ci benn domaine ñu gis ni il est en contradiction réelle parce que réelle politique dafa am boo yoragul mën ngaa wax ba xabaabal mais boo ni sarax ci biir ba parafa yi wër la nga xam ni yombewul noonu niñ ko foogee contrat yi nee nañu dañ koy tëggaat sa xel dal na ci euh, barki démb y a une semaine j'ai fait benn euh, ak les techniciens du ministère des hydrocarbures sur les contrat pétrolier di sant bu baax le président Macky Sall je parle à la télévision mm. ni sunu pétrole sunu gaz ay loi yu mucc ay bu ñu ko tënk alal jafay génn fu mucc ayib lay aw fonds de stabilisation fonds souverain bi pour les futures générations tout est organisé lii may wax les techniciens ñu ngi koy dégg maintenant on peut améliorer pour nga négocier foog ngeen nekk ñaar su fekkee ni partenaire bi nangul négocier da ngeen di dem et puis c'est pas les juridictions nationales c'est des juridictions internationales ñoom ñoo koy def liñ ma wax dañ ni cost. pétrogaz pétrogaz bi non cost oil bi cost oil xaw ma cost bi maanaam li nga xam ni moom la partenaire bi wax ni. moom la investir. d'accord il faut ñu def audit boo ni def naa ci fukki milliards. Ah. foog ñu vérifier est-ce que def nga ci fukki milliards. su fekkee defoo ci fukki milliards defoo ci fukki milliards. dama naan ah kon nañ xolaat mbir yi parce que su fekkee yow da nga war a jël loolu dafa nekk soixante quinze pour cent nga ni fukki milliards la te fekk du fukki milliards juróomi milliards la dañ ko war a xoolaat sur ce point je ne vois pas d'inconvénient li bon kay mooy la mauvaise foi bu nit ñi bëgg am yaakaar ni dañu para pasar pasare gaz bi ak pétrole bi c'est totalement faux. wala léser Sénégal ci nit wala léser Sénégal parce que euh, pétrole ak gaz nag juróomi réew rek ñoo ko mën a exploiter ci àddina fi mu toll nii. mooy ñooñu ñu jox sunu sunu sunu pétrole ak sunu gaz ba fi ñu toll ni su ma juumalee euh, yaakaar teraanga dafay ñëw cent pour cent sénégalais nga xam ni Sangomar euh, comme Grande Tortue. ah voilà euh, ñu ngi koy waa GTA dañ ko bokk ak Mauritanie. ñu ngi koy xolaat lañ ca am nuñ koy exploiter mais fi may invité sax la ñu bëgg a auditer les investissements. c'est important xam nga audit moom daf lay permettre nga am gis-gis man tey ku ma dénkoon kër gi tey bu fi ñëwee bu may tàmbali du tee dinaa wax ñu defal ma audit audit de performance audit de gestion audit d'opportunité comme ça ça nous permet d'être beaucoup plus euh, pour man efficient dans la gestion amul solo amul problème mais li ñu bëgg dama ni li ñu bëgg nit ñi ni ñu ko jàppee du noonu yaakaar na non saax saaxee mbir yi nañ ko audité non non ñoom dañu bëgg li ñuy audité du paaru Sénégal bi de. parce que bu ñu auditer bu waxee yow 75 pour cent yi ngay jël 25 pour cent yi la ñuy seddoo 75 pour cent yi bëgg nañ xam ñaata la ñaata nga ci def andil preuve boo ko andiwul nag. sañ naa pour man c'est pas mauvais en soi. Mm. mais daal pour dire que ni le président Macky Sall nous de pouvoir sécuriser notre pétrole avec des lois innovantes le mm. le, le, le contenu local. C'est autant d'architectures juridiques qui nous permettent de mieux utiliser notre pétrole. Mais fi gars yi jëm ci pétrole bi baax na mais am na lu ko gën mooy la souveraineté pharmaceutique il a un projet qui s'appelle Pharmapolis qui peut rapporter cinq fois plus que li ñu pétrole di andi président Macky Sall boosté na lii nañ ko maintenir.